sportivement. oui déception. déception déception déception une grosse déception parce qu'on avait les capacités de dépasser euh, disons de nous qualifier au deuxième tour et malheureusement euh, on s'est limité euh, à la phase des des poules. non football nga xam nga football pour yow sportivement lan moo ñu kale sportivement daal li ma mën a wax mooy manque d'engagement de nos joueurs manque d'engagement de nos joueurs. Hmm? je ne crois pas que. joueurs yi ñu yóbbu woon ils étaient aussi engagés que les Nigérians que les euh, Égyptiens que les Algériens loolu man loolu laa gis. Marocains yi nga Marocains yi laa bëgg a wax. Hmm. voilà. ok Sénégalais yi dañu manqué woon engagement. dañu manqué woon d'engagement ndax. match Sadio Mané dafa fatigué woon dafa sonnoon. je ne sais pas xaw ma fatigue la xaw manque d'engagement la mais en tout cas lañ doon xaar ci moom defu ko. ku mel ne Mbaye mën na am problème. il a été mën na am problème technique mais. daw il a été brillant. Mm-hmm. Mm-hmm. Mbaye a été brillant. et pour man c' est le maire sénégalais en dehors de Koulibaly ak Salif Sané c' le meilleur. Gana Gueye a fait son mondial. oui mais euh, pour man. parce que ku ne ak euh, euh, ki nga gis mu man pour man Mbaye Niang Salif Sané. Mm-hmm. Kalidou Koulibaly. étaient les meilleurs. Idrissa Gana Gueye a fait son match. Mais quand même, sur le, sur le coup franc de euh, la Colombie, il était là, euh, debout, statique, euh, il n'a pas bougé du poteau. Voilà. Bon, évidemment, vous défaites waroon def. Pour l'entraîneur, l'équipe lui a donné entière satisfaction. Parce que j'étais dans le vestiaire, dégna, muy remonté moral troupe bi. Te ñoom itam ba ñuy dugg ca terrain ba gañe leen taxaw na jóg xëy na ni ñu jàppe woon engagement bi ñu waroon a am ak ñun niñ ko jàppe woon du benn ok ñu bari fédération bi la ñuy joxoñ baaraam non fédération bi moom amuñ ci benn responsabilité ndax fédération bi dugguñ ci terrain bi football lañ waroon a def def nañ ko ndax mooy ñu waroon a mobiliser mobiliser nañ ko mettre les joueurs yi dans les conditions idéales pour gagner. Okay. Euh, bon boo amee sa meilleur joueur muy Sadio maane nekkul en forme amu gardien de but le Sénégal était sans défense ak Khadim Ndiaye peut-être que c'était trop. waaw on avait un gardien de but faible mais suñu défense moom euh, très sincèrement on avait une bonne défense la preuve l'un de nos défenseurs joue à Barcelone aujourd'hui et Kalidou Koulibaly amul équipe bu mënta football moom ak Salif Sané je pense que euh, problème mu Sénégal daal. feneen lañ ko doon war a war a rechercher. problème mu entraîneur. Euh, non je ne sais pas xaw ma na problème entraîneur la xaw ma problème entraîneur mais problème Sénégal moom nañ ko wut feneen fudul ci euh, défense bi et c'est on pas de gardien. le gardien moom vraiment ok euh, il n'est pas à la ñu ngi jëm Coupe d'Afrique bon déjà éliminatoire yi am nañ poule bu xamante ni kenn mënul xalaat Sénégal ba ci génn. Madagascar la ak euh, genre équipe yooyu équipe deuxième division. xam nga man Pape Cheikh lu may éviter. Hmm. gis nga il ne faut jamais tuer. Euh, euh, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. ok munoo dem demagoo ci match di bëgg a xam na match ba di déroulé woo keroog bi ñuy gagné Pologne. Mhm. ñu bari pour ñoom surprise la. parce que le président de la fédération polonaise de football c'est Boniek te polonais yi vous avez des joueurs yoo xam ne dañuy football ci championnat yi gën a ufee. mais c'est avéré que Pologne bokkoon na ci équipe yi gën a faible suñu poule. mais justement mais Pologne euh, ku ne woon ñun danañ ko gagner premier match mais kenn du ko gëm. mais ku ne woon Japon danañ euh, def 2-2 aussi dañ ko kenn du ko gëm. parce que le Sénégal était parti pour battre le Japon. ok et malheureusement Coupe d'Afrique euh, xëy na dañ ko soxla euh, loolu la ñu wax mooy objectif bi mais Maroc mu ngi ñuy xaar euh, Nigéria mu ngi ñuy xaar Cameroun. de toute façon man Souleymane Ndéné Ndiaye je n'ai aucun espoir pour que Sénégal gagne Coupe d'Afrique parce que ni ñu joué ci Coupe du Monde bi avec la même équipe le même système de yaakaar yaakaaruma ñu gagne Coupe d'Afrique. man man c'est mon sentiment. ok gëmoo leen waaw.